asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi di ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew amaat nañ mbégte toog ak yéen ci jataay bii nga xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataayub liggéeyal yàlla la waaye jataayub delloo njukkal sëriñ tubaa xaadimu rasul la jataay bii bu ngeen jàkkaarloo ak jëmm ji di oustaz xaadim mbay di jàngalekatu xam-xam bu mag boo xam ne suñu tuddee aw turam xel yu bari danañ daal di dem ca daaraam ja nga xamante ne bii fa leen leen jàngalan ca mbaaram ma waaye dana bari ñoo xamante ne bii seenum xel dana dem ca kaset yañ daan déglu am na ñoo xam ne dégg nañ aw turam te masuñoo gis jëmmam jooju mu tàmbalee jàngale ngir jëmmi yàlla ji ginnaaw ba mu sàkkoo xam-xam jaar fi mu war a jaar fépp ba am ko ba 2021 Serigne Khadim Mbaye tekki wut laxasaayam teggi wut daam ci jàngale xam-xam na ko Serigne Touba bëgge woon moom mi waxoon ne waccal huda ban maskana taallumi wa mawdihal fikrati wa tafahumi Serigne Khadim Mbaye moomu nag moo waral jataay bii ñu tooge tey jii muy lan bokk yi àndandoo xalaat ne lii muy liggéeyal yàlla ci dëkk bii di Touba ak li muy liggéeyal yàlla ci dënn yi bu fi sëriñ Touba nekkoon dana ko tabaxal daaray xam-xam looloo tax bokk yëpp maase àndandoo danañ ci wuutu Serigne Touba ngir sante ko Serigne Touba ci initiative u Serigne Khadim Fati mbay mu toog nag ay ay bokkam ñoom ñëpp ñu fas yéenee yëkkati seen kaddu waxee daara jooju fan lañ koy defee ak kañ lañ koy def ak nag nañ lañ koy defee ak ku ci bëgg a dugal saw ñàq fan ngay jaar dañee bàyyee kàddu gi Serigne mbakke mbay cumbuleen mu wax ñu njariñul xam-xam ak taxawaay bi ci sëriñ xaadim am su noppee sëriñ Jili Mbay moom sëriñ Mudu Maamun Mbay dana yëkkati ay kàddoom xamale bokk yi nga xamante ni bi ñoom la ñuy yëgal liggéey bi su noppee nag ñu daal di joxe rendez-vous bis bi nga xam ne ci lañ war a teg xeer mu war a doon alarba fukki fan ak ñeent ci weeru kor yi dëppoo ak 26 mai ci ndigalul sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye ci kilifteefu sëriñ Cheikh Mbokke moom sëriñ Saaliw mi nga xam ne moo ci jiital loxoom ba noppi nag joxe bis boobu kon ñun ñëpp ñu maa si déglu sëriñ Mbàkke Mbay cumbuleen suñ borom moom di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ki fi nekkal cheikh cheikhul xadim cheikh Ahmad Muntaxa mu yàgg fi ci wér di ñaan ki nga xam ne mooy xalifa Longhor sëñ Abdoulahi mbay di ko ñaanal ak ay bokkam ak ñëpp di sant bu baax ci jataay bi nga xam ne jataay bu am solo la ndax euh, jataay la boo xam ni ñaar rek moo ko tax a jóg muy xam-xam akum njub te ñaar yooyu ni ko alquran wax yarfa'i llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ci ñaar yooyu xam-xam ak njub ku ci la gëne noonu na ko Sëriñ Tuubaa waxe waalam bi annama tafawatul wara bil ilmi wa diini yakun fasbira loolu it mooy toolu sëriñ bi ci lim doon jihaat inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqaa loolu it mooy ndigal li nga xam ni moom la jox ndaw ñi sas muy sas yi nga xam ne moom la leen sas yóbbu leen fa na fa ñëpp dem yaa ayyuha sibyaan la tastaxilu an il huda abil ulum istaxilu muy xam-xam ak njub ndax loolu mooy li nga xam ni mooy defar nit ki ci addunaam mooy yéwénal àllaaxiraam ndax xam-xam mooy defar xel mi njub mooy defar xol bi te nit ku defar xelam defar xolam addunaam jag na ëllëgam jag jag na tool boobee nag ci la sëriñ Xaadim Mbay eh, naka jekk ba mu jàngee fa mu war a jànge def la mu war a def lépp tool boobee ca la nekk ay at yu baree bare bari lu mat ñeent fukki at ak nangam mos ko mos coo génn jàngale na fu nekk nag ron jàngale na ci taatu garab fu nekk jàngale na fa saa su nekk muy xëy di wàcc ni ko nit ñi defee lépp nag mu koy def ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul looloo tax bokk yëpp askanu Longoor wépp képp ku ci bokk ak wëlëree xarit di ñu ne daal bis tey xam moom moo war a njukkal Sëriñ Xaadim Mbay ci ñun ñi ñoo doxal looloo tax bokk yëpp ànd ak moom Euh, ak wëlëre yi ak xarit yi ngir daara ji nga xam ni moom la fas yéenee taxawal ñu taxawal ko ko nga xam ni moom ban koy lijjanteeg ban koy wax yoonam nekku ci mbokk yi ñoo ne lii daal mënta ñàkk xam moo koy delloo njukkal tey kon loolu mooy da nga xam ni mooy ñu ngi ci wow ñëpp ci woo al alamal islaami te it Cheikh Mouhamadoul Mountakha keroog ba mu ci toogee moom dane loolu kenn duma ci jiitu jataay bii de amul jataay bu ma gën a neexee nii wax ci ay fiyada yu baree baree baree bare naka dara ëmp ma ci nag dara ëmp ma ci waaw yëkkati aw ñaqam du ne na liggéey fu mu toll naa ko yëg kon na ñëpp jaar ci mbooram ca jàpp ci bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki julli di bokki taalibe yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa sun borom yàggal ko fi dool te wéral ko ak mboolem julli fu ñu mën a nekk di am mbégte ci jataay bi nga xam ne ñu ngi ko defee fii ci kër sëriñ Xaadim Mbay Longoor di ko defee ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides ak sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou ak sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mbacke Soxna Lo ak di ko amal ci sa ndigal sëriñ Moussa sëriñ Moussa Nawel moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Basirou eh, di ko amal ba tey tamit ci ndigal sëriñ Abdoulahi Mbay sëriñ Abdoulahi Mbay xalifa Longoor ak di ko woote bi nag mi ngi aju ci daaray xam-xam ju mag joo xam ne fas sëñ koo yéenee amal di ko defal sëriñ Xaadim Mbay Longor mi nga xam ne dafa jeexal dundam gépp ci jàngale xam diine ngir jaayante ko ak sëriñ defal ko ci dëkkam bii sëriñ bi nag dafa wax ne ñu ngi ci woo bokk taalibe yi ak soppe yi ak xarit yi ak wëlër yi ñu ngi ci woo Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne moo yor sëriñ bi ñu ngi ci woo mboolem ñi nga xam ne ñoo ngan ko dëkk bi li tàmbalee ci maire bi ak préfet ak sous préfet ak ñi aju ci dëkk bépp yor lu wàllu at dëkk bi ñëpp ñu ngi ni ci woo sëñ bi wax ne mi ngi ci woo mboolem commerçant yi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi te lu ñor leen mi ngi ci woo bokk yëpp mboolem seex yi ak bokk yi ak taalibe bi ak wëlër yi nee mi ngi ci woo tam sëriñ Abo Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Modou Mamoun ak sëriñ Cheikh Abdou Mbacke ne mooy xalifa sëriñ Amdi Darou Salaam ak mboolem njabootu maam Cheikh Anta ak sëriñ Xaadim ñoo ñoo ko seq ak mboolem njabootu sëriñ Afe gépp ak mboolem njabootu San Anta Jaay Mbacke gépp mi ngi ci woo njabootu maam Abdul Xaadir muy njabootu sëriñ Mbàkke soxna moom maam Abdul Xaadir moom maam Bala Isa nee na mi ngi ci woo ñëpp mi ci woo njabootu sëriñ Mor Fati Touré Madina mi leen ci woo mi ci woo mboolem bokki lappe ñi sant Touré ak fu ñu mën a bokki njaxate yi ngi ci woo ñëpp sëñ xaadam daa nee na kenn bawul fenn bawul ñenn mi ngi woo képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an la ilaha illa wa ashadu anna muhammadu rasulullah sëñ xaadim ne mi ngi lay woo liñ def nag mooy lii daara yi alquran xam ne daara yi xam-xam ne ñu ngi koy def di ko tabaxal sëriñ xaadim mi nga xam ne dundam gépp da ko jox sëriñ Touba di jàngale xam-xamu diine bis bi nag mi ngi tolloog àllarba fukki fan ak ñeent ci weeru kor wi tolleeg ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru tubaab buñ xëyee suba dix heures et demi ci la ñu tàmbali euh, jataay ba incha allah ñoo bëgg balaa di incha allah lépp mu jeex ñu bokk ñaanante ñaan képp koo xam ne def nga ci saw ñaq yàlla nangu ko te fulal la ko te loo ci bëgg suñu borom defal la ci ndam muy njëgal àdduna ak àlaxira jërë ngi jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullahi taala lii nga xam ne mbooloo mi di ay mbokk te bëgg lu baax tàmbali liggéey boo xam ne def nañ ko ba mu sori sama musuma cee xam ne yëguma ko la tax ñu koy def mooy jëmmi Sëriñ tubaa danaa dëggal li ñu wax ndax lu ñu wax. ka xam ne moom moom wax ji lam cey wax mooy gën a wér bi ma tàmbalee jàngale jamonoy 90 muy jàngale majalis mi ma tàmbali di enregistré Jawharun Nafis laa njëkk a tàmbali enregistré teg ca tasawudu si xaar bi ma demee ba ci masaalik nag boobu moom yëf yi dugg ma ma jógal sama bopp dem ba ca barab ba ma jàkkaarloog sëñ Tuubaa ni ko man kat yëg naa ne maa ngi si dikk bi ñaquma sonn te maa ngi am sa tiraanga kon nag wax dëgg yàlla su ma mënee dara war naa daa fay cukkal te yàlla dogal na njàngale am na lu ma ci man kon nag li may jaayante yow mooy tàmbali naa njàngale mi fas yéene naa fii sama bakkan a ngi fi duma ko bàyyi kenn <laughs> waaye ca saasa bu ma doxee tuuti ci masaalik bi sama digg sëñ bi xamal na ma ne jaayante nga nangu la ko lay firnde ja mooy sëñ Murtala radiyallahu anhu dafay ubbi daara ci Brescia daal di yónnee ci man ne ma man day sama daara ji bu ma sonoon say band lañ koy ubbee muy jox ko téeméeri band sëñ Xaadim mii xam na ci dara ba ma ko defee ba daara ji ubbi ca déwén sa mu yónnee waat ma ne ma nañ ko dolli ma joxaat ko yeneen téeméeri bànd kon man dëgg la jàngale naa yeneen téere waaye téere sëñ Tuubaa moom moo ma gënoon a ñor ndax booba maa ngi déglu ay enregistrement yoo xam ne def nañ koy téere yi te wax dëgg yàlla ci sama xam-xam bu gàtt loola des na ci leeral ga ci laa defee masaalik ak mawaayibul xuddoos ak téere sëñ Tuubaa yëpp day nga xam ni ñu koy jàngale ci daara yi waaye yëmuma ca loolu nag jàll naa ci ay risaala ay maqaama ak xaliil ak yeneen ak yeneen waaye da liberté wóor daal mooy li may def jëmi Sëriñ Tuubaa moo tax. ñuy fàttali rek ne Sëriñ Xaadim nee na woote boobu kat ginnaaw yàlla dogal na bokk yi ñoo àndandoo di ko def te yëgaluñ ko ci dara waaye teewut nag mu mu am ay bokk te dëkk ci dëkk bi te ñëpp yam ci moom moo tax mi ngi koy yëgal sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina ak mboolem njabootu sëñ Mbacke Madina gépp nag di ko yëgalit sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Abdoul Khadir ak mboolem njabootu sëñ Abdoul Khadir gi waaye la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mahamadou Moustapha al Karim ba bëggee ñëw ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtala yooyu bàyyiwu ci benn buntu kan ndax ñëpp a yam ci moom di ko yëgal yëgalit mbooleem njabootu sëriñ Touba gi eh, la ko tàmbalee ci ba ci buntu kër soxna Maymuna mboolem ku Serigne Touba seexal sa maam wala nga daje woon ak maamam ca Mbàkke Kajoor Serigne Khadim nee na mi ngi la ko yëgal woote bi nag ñu tànn ci ñoo xamante ne bi buñ leen tuddee dañuy yóbbaale ñi ci waaye mënee su leen a ñàkk a tudd ku mel ne Serigne Amsatou Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ku ne xam seen diggante Serigne Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir ñëpp xam nañ seen diggante Serigne Mouhamadou Ngaabu moom soxna Mbeen Ngaabu waaye di ko yëgal Abdou Karim Mbacke makaarimul axlaax Serigne Cheikh Waalo Mbacke moom Cheikh Ibrahim di ko yëgal ba tey itam nag mbooleem njabootuk Serigne Touba gi nga xamante ne bii ñoom njaboot jaar nañ ci loxoy sëñ Xaadim Mbay sëñ day wax ne bëggut a tudd kenn ndax ñëpp a yem ci moom waaye daal nañ yëg ne woote bii képp koo xam ne tàbbi na ci sam nopp sëñ Xaadim nee ma nga lay tàllal loxo te di la ca woo waaye nag nee na di ci dalum xel lool di di dëgërloo kàddu yi nga xam ne moom la ko sëriñ Abibu Mbàkke waxoon ca njàngaleem xam-xam ma ba muy jàngale xam-xam ca këram jaar ci sëriñ Abibu daf ko wax ne ko man day sant naa yàlla samam xel dal na ndax kat lii ñuy nekk xam nañ ne ñaanu sëriñ Tuubaa gu nangu la te liggéeyub sëriñ Tuubaa bi lam ma ci waxoon maa ngi ciy bëgg teg sama bët ndax neena na sëriñ Tuubaa noonu na ba muy nekk ca dexu yàjjin ga di fa doxantu da doon woolu ku ñuy wax sëñ moor Dem fekk booba mu dëkkee Ndar nee na bi sëriñ moor Dem ñëwee sëriñ Touba ne ko li ma amoon yéene mooy yóbbu la ci sama dëkk bee ñuy wax Touba nga toog fa di ma fa jàngaleel xam-xam waaye sama borom xamal na ma des na diir bu gàtt danaa fa am ñu ma fa wutu ñoo xam ne lu waay bëggati ci xam-xam boo gàdduwut say kaggu dem Touba doo gis ko la ko tëralal te loolu yaakaar na ne dëppoo na ak li Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne fii ak ñetti téeméeri at danañ mel ne wala ñu mel ne réew ca des ko ko dex gii ngay séen nga xam ne ci laa duy ndoxum jàpp sama borom xamal na ma dana ma ko may ci sama dëkk boobee di Touba te lépp loo xam ne Serigne Touba mas mas na koo laaj boromam subhaanahu wa taala teg na ko ci loxom kon nag bis baa ngi noonu àllarba lay doon yemoo ak fukki fan ak ñeent ci weer kor yi dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-benn di ame ci wetu asalem asalemuk soxna Maymuna boo ñëwee ci sa loxol càmmooñ ci ngay jàdd da nga gis tegtal ya am na tabla bu ñu def ci wetu télé bi soo fa jaaree daañ la ko mën a indiqué waaye képp koo xam ne bëgg nga cee def saw ñaq am na numéro compte bu ñuy joxe boo xamante numéro téléphone Serigne Khadim Faty Mbaye mii nga xam ne xalaat yëpp ci moom la bàyyi ko Serigne Khadim nee na lu waay di jox na nga ko ko jox numéro téléphone am nag am na Wave am na Orange Money moo di 78 533 92 45 78 533 92 45 kon bis baa ngi noonu liggéeyub yàllaa ngi noonu liggéeyub xam-xam a ngi noonu képp ku mas a jaar ci daara ji wala nga mas a déglu ay kasetam wala sa doom sax masa jaar ci daara ji sëriñ bi nee na mi ngi la ko yëgal di ñaan képp ku ci def saw ñaq yàlla nga ci dajee ngërëmul sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu